euh, problème mu distribution euh, euh diminution des prix. Ouais. nit ñi dañuy focaliser wu si affaire mburu mi. mais na nga xam ne distribution depuis dafa touché ay denrées yu bare bare. ceeb dawlin et li ma si jëkk wax mooy déjà dañuy félicité wu si euh, décision bi nga xam ne gouvernement bi jël nañ ko. bu conforme à leur engagement politique ni suñu accès au pouvoir si première année bi bëgg nañu euh, def lépp pour wàññi les prix de première nécessité mhm, mhm. donc ñu ngi si loolu pour wane ni seen euh, euh, kàddu dafay méngoog seen jëf mhm. léegi jël nañu ay mesures mais xam nga mesures yooyu dafa nécessité aussi li ñu wax ku nekk wane son patriotisme loolu c'est très important c'est-à-dire actuellement problème mu euh, mburu mi la ñu wax ak les meuniers euh, ñi nga xam ni dañu am ay réticences parce que dañu ni way dañu nar vente à perte mais man du ma ko mën wax ni vente vente à perte lay nekk mm-hmm. xëy na kay dañu naan seen marge bénéficiaire mooy wàññeeku mais loolu nag dañu war a am un sursaut patriotique mm. ndax su fekkee ne da nga bëgg sa réew ba pare nga am l' esprit civique esprit civique boobu dafay entraîner lu ñu wax la solidarité pour le bien de la collectivité donc même sa marge de manœuvre c'est c'est réduit nga gis ay autorités yoo xam ne ñëw nañu ñoom déterminé nañu pour jàppale askan wi dimbale leen je crois que doyen si mentionné ko mentionné na ko il faut que aussi ñu àndandoo jàppale leen ñoom pour que mu mën dox parce mmh. que c'est pour le bien de la collectivité mmh. donc encore une fois il faut que ñu xoolaat bu baax lu ñu def xam ni c'est un appel euh, patriotique mmh. ils ils doivent aussi contribuer nañu yërëm askan wi Sénégal nag aussi loolu dafa nekk problème gis ngeen tabaski bi li fi xewam maanaam euh, pour le transport su fekkante ni dañu am masse yoo xam ni dañu war a tukki mhm. commerçant yi double prix population bi en ce moment dañuy nekk ci ay jàqare yu baax a baax di mhm. souffrir mhm. Euh, loolu aussi problème mu égoïsme la maanaam ku nekk danga xalaat sa intérêt bopp doo xalaat intérêt ñeneen te loolu mooy changement de mentalité bi nga xam ni moom la ñu bëgg mu changer fii si Sénégal pour que dëkk bi mën dox alors euh, gis ngeen aussi mesures yi nga xam ne gouvernement bi quand jël na ko rapidement. Mhm. pour contrecarrer maanaam jël une centaine de bus Dakar Dem Dikk euh, indi ko pour que les prix ñëw à la normale. Mhm. fii aussi dañuy def appel aussi aux meuniers pour que ñu jël données yooyu en compte.